نعم العديمة نعم الكريمة نعم المقيم للوزين كافي الغرور مع الغرور موت البرور بلا تسين باني ديوري مع الغيور باغي ضروري لجلتين لو امتداحي بعد نجاحي هند زباي وفي مزاي صلاة ستا بمري ستا تاتي بطا ما تسائي علي صلاة ربنا جلا فواخذ كل ذي لبغي علي صلاة ولم رفق ما ولجرات في لسكي bokki jullit yi bokki taalibe yi alxaaji njoogu Fall mi ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke jenn mi jiite section dakaar ak jëwriñ yi ñu àndal te sëriñ Mbacke Sylla ak soxna Walimata Kàññ nekk ci bopp ba ñoo leen di nuyoo ñoo leen di nuyu di leen jotalit nuyoob sëriñ bi nuyoo boobu it ñu ciy jiital bàyyi sëriñ Jaw Mansour suñu jur bu baax woowu waaye jaare ko it ci sëñ Ahmadou Jaw mii ak mboolem njaboot gi mu fi nekkal ak waa daayira bi yépp ñi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi ñu wax ne dañu fee teew ci ndigalul sëriñ Baara Mbàkke Muhammad moom it mu jox ñu ndigalul teew fi ci ndigalul kilifaam magamam di sëriñam Cheikh Mouhamadul Moustapha mu wax ne sëriñ bi nee na mu ngi leen di ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bii di leen ñaanal yàlla sunu borom subhaanahu wa lii ngeen ci yéene ba taxawal ko yalla na sunu borom nangul len ko ci barkep Serigne Touba nee lepp luñu fi def ci ay munajat alquran duñ fi jang ak qasida yi yep sunu borom yalla nako ko nangu def ko ay xewal yu yaatu ci barkep serigne bi soti ko ci aduna bepp fep fu jullit sunu borom dajale ko ci xewal googu serigne bi wax ne moom ci boppam moo waroon a ñëw ci jotaay bi ànd ak délégation bi waaye ndigal da koo dab mu dem Touba ngir liggéey boo xam ne dañ ko fay liggéey ngir waajale ko màggal gi loola tax mu yebal Alaaji Njoogu ak Serigne Cheikh ak mbooloo mi nekk ci ginnaawam ngir ñu ñëw teew ci bis bi bokk ak njaboot gi bis gi bis bi di len xamal ne nañu xamne bis bi serigne baa ngi bokk ak ñom serigne baa and ak ñom di ñaanit yene ji ci am ak ñaan yi ci am ñaan yalla na suñu borom nangu ko mag ñi nga xamne ñoñu taxa tax diko di ko di yalla fàttaliku borom defal len xewal yoy danañ yegne bis bi tay ji ñu ngi koy dundal bu baaxa baax ci barke touba sering bi wax nit mi ngi len di sant bu baax ci sen taxaway ci sen taxaway ci kër gi ci sen taxaway ci njabot gi sëriñ bi neena gis nako bu baax mi ngi ñaan lepp lu ngeen di def ci kër gi diko liggey te diko ko liggéeyal Touba jaare ko ci mom yàlla sun borom nangul len ko te ngeen dajje ci ngeeramal Touba neena mi ngi len di sant bu baax di len ñaan di ñaanit sun borom subhanahu wa taala kep ku fi ñew tay ji suñu borom faj aajom zahiran wa baatinan jotaay bi yàlla suñu borom gërëm ko yàlla suñu borom barkel ko yàlla na ngeen ci dajeeg ngërëmal Serigne Touba neena mi ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu nak mu wax ne ñunu ñëpp nañ bokk waajal magal gi te xamni magal gi ñew na wa noppi magal gi nak magaluk Serigne Touba la. dan ko Cheikh Moustapha ko Cheikh ko daru qudus waaye nañu xam ne màggaluk sëriñ Touba la bis bi sëriñ Serigne ñibbi see Touba moom lañuy màggal te moo waxoon euh, walijaalil mawta raxatin wa mafraxatan min kulli charrin wa karbin dooqa yallaahu ñaan sunu boroom mu defal ko euh, ak dee faatu muy ay noflaay ak ay ak ci moom ak mucc ci bépp xat-xat kon bis bi bisub noflaay la bisu mbégte la bisu denc ay khat khat la ci serigne Touba mu ne kon nañu bok wadjal ko rawati na nak liñu ci Cheikh Moustapha dik te mom da waxon ne ñemewuma bor dama am pay mo waxon ne bis bobu kuko fanan Touba set wecc ci bakkar ne bis ba nga juddo won kon nak serigne bi nee mi ngi leen koy lo xel bu baax nañ ko bok wadjal te ñaan suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm euh, buñ ca àggee ñu defee ko niko borom bëggee ta dajé ci ngërëmam ci barke serigne Touba sering bi neena mi ngi len di sante di len gërem di len dolle ndokkeelit bu baakha a baax ci bis bi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ngi sunu borom subhanahu wa taala di julli ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sant a eh, cheikh Mustafa mustapha Muhammad mohammed di gërëm serigne cheikh diaw mansour mi sunu buntu ci kër cheikh mouhamadul mustapha di dolliwaat sunu Yakar ak sunu mbekté ci ndigalal sunu jëwrin yi ñu togal ci barab bi muy serigne basirou diaw sering Muhammadu Diaw sering bara ak njabot gi fi nek yep Cheikh fatifal serigne mor serigne bara ñepp di di ak serigne bi ak jawrin yi nga xamne ne ñoo jiite liggéeyub kër gi di kër Baye Serigne Diaw Mansour jawrin Serigne sangu Diop mi jité liggéey bi ak jëwrini fédération yi ak mbooleem jëwrini daayira yi fi daje noo jël seenu nuyoo ak seenu cant tënk lépp jébbal ko sëriñ bi mu jébbal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikh Mouhamed Mbacke waaye ñu jaarale ko ci jëwrin ji nga xam ne moom moo jiite délégation bu sell bii di alxaaji Njogu Fall ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal te ñu représenté sëriñ bi fii ci ndakaaru muy kilifa yi ak soxna yi bàyyiwuñu kenn amoon nañ cofeel ak mbégte kenn ku nekk ñu tudd saw tur wax la sunu yëg-yëg bi ñu am ci teew gi nga teew ci bis bi wante bu ñu tuddee alxaaji njoogu dana mën a yóbbaale ñépp ndax mooy jawrin ji kon alaaji njoogu sëriñ Cheikh Diaw Mansour nee na mi ngi lay nuyu nuyoo ba gën a rafet te gën a matale di la jox ab ziyaara bi muy siyaare Cheikh Mouhamadou Lamine nga jottalil ko ko muy jëwrin ju mat jëwrin ngantam ak yéeneem lépp yegsi na wante jëmm yu sell yii fi teew doy nañ sëkk sëriñ bi ci nun ndax Baye Serigne Diaw Mansour dañu daan wax ne ki leen sëriñ bi booleel def leen ko muy sëriñ bi kon yéene sëriñ bi ci nun ndax nun ay taalibe lanu yoo xam ne sunu lépp dafa tàmbalee ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi loola it mooy la sëriñ bi waxoon ne duñ follu duñ ko loor lu sëriñ bi amul bëgguñu ko fu mu nekkul wuñ fa la mu xool joxoñ ko ca loola lañu ñu nekk sëriñ cheikh wax ne bis bi bisu si ahmadou bamba la waaye dafa am ndigal ci cheikh mouhamadou mustapha mbàkke mohamed ngir taxawal ko di ko waajale màggalug daaru xudóos di magaluk sëriñ Touba gi nga xam ne cheikh mouhamadou mustapha ci boppam ba muy woote bàyyi sëriñ jaw mansour daa bokkoon ci ña ko wuy woon te mooy sun wajur yàlla dimbali ko mu am pas-pasu taxawal bis ci ndakaaru ngir tuddee ko mag yu màggaluk daaru xuddoos ñu tàmbale woon ko 2009 keroog bañ koy tàmbali it Serigne Cheikh jaw ci boppam muy xalifa Cheikh Mansour jaw di xalifa bay Serigne jaw Mansour mboolem taranga yu ñu fi defoon ci oto la ko Touba andi ko ndakaaru ba ñu demee ba ngoon mu dama bëgg bis bi wéy motax ma bëgg sama ñak tambali ko ba ngeen xamne sama ndigal la li Cheikh de dële ci magal gi la bëgg ñi and ak ñun dëkk ndakaaru te bokku ci kër gi ñu ñu ci lolé ko Cheikh Moustapha waxon te waxon ko suñu wajur te tay teeween ko serigne Cheikh neena na ngay dolle waat mbektem lol ci seenu jotaay ndax du ngeen fi gan danu ko andon ak yeen ci at yi am yene yit lepp lu def ci kër Cheikh mahamoudou mustapha ñu ko kook seeni jëm bu ñu sëriñ bi gërëm ñu bokk ngërëm la bokk ndam la kon sëñ Cheikh neena na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax baax dolli ngeen nit suñu ciofel ak suñu yaakar gën ngeen ñoo sagalit ndax yeg yeg bi ñu am ci ahibayil khadim ci ndigal Cheikh mustapha sunu lamiñ lot na ci tudd ko xanaa di jëf rek ba ala kulli al yalla nañu dajje ngërëmal sëriñ bi alaaji ndiogu Serigne Cheikh neena na sant na bu baax nga santal ko Cheikh Mamadou Lamine te nekkon mi ngi wat ak laxasaayam boole ko mboolem laxasayu keur Cheikh Mansour Diaw jébbal ko ko diko denk wa waa te di ci rafet njort ci lepp lu man di don sahiran wa batinan no ngi sant nak ñi fi tew kon xamna gan ñi fi wakal, lañuy waxal ngir ñom dañu wara delu wat ci waajtaayu magal gi ñun ñu continuer waajtaayu magal gi dem Touba magali ci Cheikh mustapha noo ngi gërëm ñëpp tey jéggul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nu dimbali nu la ñaanalal ñu Serigne Cheikh man Mansour mu delluwaat ci yitte yi. وكل ياس بلا انتهاء